allahumma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé kañu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi Léopold Mendy mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa mi ñu may fanaanug jàmm ñu ñaan ko moom yàlla buur bi jalla wa mu may ñu kendaluk jàmm mbokk yi yan na jàmmi nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne waxtu wi bu jotaan dinañu ànd ak yéen ñu fas yéene wéttalanteek mbokk yi lenn ci suñu mbiru diine la nga xamante ne mooy jaar fii ci daara ji ci réew mi FM 97 point 5 ci waxtu wi mbokk yi yéen a ngi fàttaliku suñu alwo ju mujj fa ñu yéemande ki yéen mu di bërëb bi nga xamante ne mooy fa suñu boroom tabaraka wa di joxoñal yonent bi sallallahu alayhi wa waaye muy joxoñal xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa xeetu xéewal ya xamante ne fa moom yàlla buur bi tabaraka wa la bàyyee mu di ko dottil ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xeetu yonent yàlla muhammad alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ñu am ci lu doy la méngoog la seen boroom xéewalal xeetu xéewal ya nekk moom ba tax ñu nit ñu di ko ñaan di talal suñu loxo di ko ne allahumma anta salaamu wa minka salaam ilayka yacuudu salaam fa xayina bisalaam wadxilna aljannata daaraka daaru salaam ñu di ko ñaan buur yàlla yàlla nga ñu dottil xéewal ya nekk fa yow ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu xéewalal xéewal ya nekk fa yow duñu xaaj duñu jeex kon jël nañu yàlla boole may xéewal yu ni mel waaye yal nañu yàlla dundal ci jàmm yal nañu yàlla faat ci jàmm bu ñuy dajeeg suñu boroom yal na yàlla dogal ñu faatu ci jàmm waaye keroog bés pinc bu ñu dajeeg moom yal nañu buur yàlla tàbbil kër xéewal ba fa moom mu di jàmm di aljanna amiin yaa rabbal aalamiin buur yàlla mën na ko sañ na ko yal nañu ko buur yàlla defal amiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi xam ngeen ni ci ginnaaw tuuti rekk ñu ngi jóge ko jëfandikoo xéewal ya ñu yàlla xéewalal mu bokk ci xéewalu nelaw xéewalu nelaw nag yow jullit bi dafa am particularité ba nga ci am ba wuute keneen ku dul jullit na mu nekkee di nelaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ma yàlla xamal xam-xam bu kenn xamul mooy baaxe jullit bi walla yow mi nga xamante ni yaa bokk ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañ leen bokk déglu lañu suñu yonent bi baaxee ne jullit ba nekk di dallu ci dallukaay ba mu nekk di noppale ko te mu doon néegam moo xam ci kaw lalam walla béréb ba mu nekkee di nelaw sang bi nee na jamono bu doomu aadama bi nekkee di nelaw walla jamono ba jullit bi nekkee di jëfandikoo xéewalu yàlla ba ñu naan nawum te moy nelaw seytaane day ñëw am lu mu jëflante jëmm jooju waaye yonentu bi sallallahu alayhi wa mu ngi ni di la tegtal ne seytaane bu ñëwee mu di jëflante ki yow ci sa biir nelaw anaw bi nga xamante ne amaana xamuloo ko munoo koo xàmmee walla munoo koo dékku kay nga déglu lala yonent bi bugg a baaxee sallallahu alayhi wa ngir nga gànnaayoo ko mu doon jumtuwaay wi nga xamante ne boo ko gànnaayoo seytaane bu ñëwee di la jax-jaxal ci nelaw du la munal dara di nga rëcc ci pexam seytaane laanatullahi alayhi kon ñu nit ñu fas yéene leen andil tegtal ba yonent bi tegtal ne yow jullit bi jamono bi nga nekkee di dallu ba seytaane ñëwee nar a jax-jaxal sa nelaw woowu nga nekkee ba waxtuy fajar nar a jàll tëddoo ko yëg mais ñu nopp ñu waxtaan ak yow ñu andil leen tegtal ba ñu yonent bi joxoñal ne kenn ci yéen bu nekkee di dallu wala mu di mu di jëfandikoo xéewalu yàlla ba ñu naan nelaw seytaane dina ñëw mu am la mu jëflanteeg jëmm jooju kon képp ko bëgg xam la seytaane di jëflanteeg jëmm jooju nag ñu may nopp ñu waxtaan ak yow ci lan ñu yonent bi tegtal ne seytaane noonu lay jëflanteeg jëmm jooju waaye képp ku bëgg xam la yonent bi joxoñ ne bu seytaane jëflante ki yow lamu nara nar ki yow lalay lay musal ci pexum seytaane képp ko bëgg a xam loolu tamit nang ñu may nopp ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji fii ci réew FM 97 point 5 ñuy nuyu di ziar mboolem auditeur ya ñuy topp ci waxtu bi yàlla waxtaan bi doon la ñuy njëriñu waaye waxtu bu ñu consacré dépensé ko ci déglu waxtaan wi yàlla bu mu doon waxtu bu neen ñen nañu ko yàlla defal xasanaat fi misaan koy baaxe yan na ko yàlla jàppandalal mu faram fàcce ko comme ni mu nekkee amin ya rabbal alamin yàlla may ñu dégg topp tamit jaalana allahu wa iyakum min alladina qaalu samina waataana yàlla ñu yàlla boole wërsëgal mais ñu ñu bokk ci kuréel yi nga xamante ni lépp lu ñu dégg ci lu baax ci yàlla nee na wala yonent bi nee na dañuy nangoo doon ñu naan dégg nañu te dinañu topp lañu dégg amin ya rabbal alamin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na annawm inda salaati alfajr nelaw ci jamonoy fajar danje gënu ko ëpp amul dara lu ko gën a ëpp danje su ko defee nañ leen bokk déglu la suñu sang bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ne danje ba nekk ci nelaw jamono ba noddkat bi di woote ci jàkk ji muy nodd mu naan ci njeexantalu nodd ci waxtuy fajar asalaatu julli asalaatu jokkale kaay baleen di jokkale seen borom salaatu audience bu toll ni julli xayrun moo gën mina naw nelaw ba nga nekkee noddukat bi jamono bu mu nekkee di noddu baat bi ci jàkka ja yow mu mi fekk ngay nelaw xamal ne yaa ngi def dange bu toll ni aka neexoon nga xam njëriñ ba fa nekk ko neexoon nga xam njëriñ ba fa nekk ba nga fudd jugee ko ci mbàjj bi laablu jàpp dem wuyu woote bañ lay woo su ko defee mu doon ngëneel ba ngay manqué ci bés boobee qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqidu sheytaanu ala qaafilatu ra'si ahadukum fa ida huwa naama thalaasa uqdin yadribu kulla uqudatin alayka leylu tawil farqud fa in istaqayta fadkuru llaha in xalat uqdatan fa in tawadda'ta in xalat uqdatan fa in salla in xalat uqdatan fa asbaha nashiitan tayyiba nafsin wa illa asbaha xabiisa nafsi kaslaan saxiixul buxaari mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot suñu yonent bi yàlla yónni mu nekk nabiyu rahma bu duñu wax ci alquraan ne yónni bi ma yónni yonent bi du lenn lu dut mu doon xéwal ak yërmande ñeel leen moo tax mu duñu wax ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónni bi ma yónni sama ndaw bi di muhammad sallallahu alayhi wa du lenn du dara tax ma yónni ko lu dut mu doon yërmande ñeel sama mbindaafooni mboolem seen sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne danger ba nekk ci nelaw waxtuy fajar moo tax mu ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yan na ko yàlla yokk xéwal ak mucc yaqidu sheytaan nee na dina yeew dina takk ala qaafilati raasi ahadukum gàngooraam ya muy àndal seytaane dina ko yew dina ko takk ci bopp kenn ci yéen ida huwa naama jamono bi ngeen nekkee di nelaw yeew ba muy yeew takk ya muy takk bagaasam yi ci boppu kenn ci yenn jamono bu mu nekkee di nelaw dina ko takk ñetti takk-takk waaw dina yeew ñetti béréb maanaam dina takk doomu aadama ñetti béréb yonent bi nee na takk bu njëkk ba muy takk yadribu kulla uqdatin alayka leylun tawil njëlbeenu takk bi day diisal sa yaram guddi bi sori lool guddi bi daldi gudd lool waaw nga nekk ci nelaw doo mun yeew doo mun a jóg doo mun a nga nekk di gént ay gént yu raglu gént yoo xamante ne doo xam bopp bi génn gént yoo xamante ne léeg-léegi mu gént loola gént yu neex ba tax na doo am envie sax put jóg dem faj aajo loolu yëpp seytaane dina ko def kenn ci yenn ngir bagage ya mu takk sa yaram ñetti takk-takk yooyu waa yonent bi sallallahu nee na yow jullit bi kay ma jox la solution bi nga xamante ne boo ko dégloo nga jëfe ko loolu la seytaane takk dina deñ dina firiku waaw nee na seytaane day takk ñetti bërëb ci yaramu doomu aadama jamono bi ngeen nekkee di nelaw loolu muy takk seeni yaram nag mooy bagaasam yi nga xamante ne dañ leen di diisal gën ba tax na guddi bi day sori lool guddi bi day gudd waaw nga nekk di bëringu rekk di nelaw rek di topp neexaayu nelaw rekk waaw ngay nelaw bay mbëkk miir bi macha allah waaw su ko defee noddukat bi di nodd asalaatu xayru min an nawmi nga nekk ci leneen yow nga nekk feneen ci leneen moo ne seytaane moo lay takk bi doo mun a jóg kon yonent bi alayhi wa sallam ma yàlla ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónniwuma la lu nga doon xéewal nga doon yërmande ñeel sama mbindaafoo ni yonent boobu moo la bëgg a wax yow jullit bi ana lan mooy solution bi nga xamante ne boo ko jëfandikoo loolu la seytaane takk dina deñ dina fireeku dina fecci kon ku bëgg xam la yenent bi joxoñ ne loolu mooy tax loolu la seytaane takk ana solution tax loolu mun la takk day deñ nang ñu may nopp ñu wax la la yenent bi joxoñ fi sallallahu alayhi wa ka yàlla yónni ci xeet bi nee na farqud nee na képp ku tiit ci nelaw képp ku yëg ne ximiliku nga fa in istaqida fa iza istaqida fadkurillah yonent bi nee na ci diggante bi képp ku ci ximiliku nga yeew yëg da doon nelaw mais léegi yeewu nga sa ruux delluwaat na ci yow conscient nga nee na na nga tudd yàlla nanga nga ne allahu akbar wala nga ne alhamdulillah wala nga ne subhaanallah waaw jamono bi nga yigée ne yeew nga rekk yonent bi nee na fasaasa na nga tudd yàlla moo tax mu ne farqud waaw da nga waajalal sa bopp jamono bi ngay tëdd boo yëgee yeewu nga fa inistaqida boo yeewoo ci nga tiit ci nelaw bi nga ximmiliku yonent bi fa na fadkurullah nanga tudd yàlla wax alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa nga tudd yàlla moo xam tudd yàlla ba yomb ci yow ci moment boobu yonent bi nee na tudd yàlla nee na boo tuddee yàlla rek ci saasi njëlbeenu takk bala seytaane takk yonent bi ne inhalat uqdatan nee na ci saasi benn ci takk-takk yooyu seytaane takk sa yaram yi njëlbeenu takk bi yeew bala seytaane yeew ci premièrement bi neen takk boobu day daal di fecceeku day daal di firiiku moo tax mu ne in xalat uqdatan waaw loolu la seytaane takk dañ na bu dee seytaane daa takk sa bopp bi loolu mu takk sa bopp bi bagage am yooyu la diisal ci guddi bi waaw bagage yooyu dañ na firiiku na kon nga déggee ci ne kon sa bopp bi woyof na léegi mu des ñaari takk yàlla seytaane takk bu dee daa takk sa ñaari loxo ak sa ñaari tànk léegi la mu takk sa loxo ak la mu takk say tànk ñoo fa des bopp bi moom deñ na parce que boobu bi nga yeewoo da nga tudd yàlla kon njëlbeenu takk ba mu takk ci sa bopp bi bagage yam fa takk loolu fireeku na deñ na kon sa bopp bi woyof na sallallahu alayhi bi léegi nee nañu ñaareelu solution ba tax ñaareelu takk bi muy fireeku mooy fa ini tawadda boo jàppee nga jóg dem ci toilette bi nga jàpp yonent bi nee na in halat uqdatun ñaareelu takk ba mu takk sa loxo yi loolu mu takk béréb boobu foofu tamit dañ na fireeku na bagage yam fa takk gannaaw bi nga jógee jàpp bagage yooyu dañ nañu ci la takkoon sa ñaari loxo yi yonent bi nee na sallallahu alayhi wasallam bi léegi fa in salla jëmm jooju bu julee ñaari rakkat ci guddi woowu in halat uqdatun am na weneen takk ba seytaane takk sa ñaari tànk yi te bagaasam yi la fa takk loolu tamit dañ na kon nga déggee ci ne képp ku yeewu ci nelaw nga tudd yàlla la jiitu seytaane la mu takk ci sa yaram pour takk bi dañ na bagage yam fa takk disparaître nañu parce que lu tax bi nga yeewoo nga ximmiliku nga yëg ne yeewu nga ci nelaw danga tudd yàlla tudd yàlla boobu nga tudd yàlla seytaane day daw te bagage yam fa takk tamit da koy toppaare waaw duñ fa des léegi mu des la mu takk sa ñaari loxo ak sa ñaari tànk sang bi ne boo jógee dem ci toilette bi laablu jàpp moo xam danga sangu moo xam danga laablu nga daldi jàpp nee na ñaareelu takk ba seytaane takk sa ñaari loxo yi woowu it deñ na léegi mu des benn benn takk boobu mu takk sa ñaari tànk yi yonent bi nee na boo julee ñaari rakaa ci guddi woowu su ko defee ñetteelu takk bi dañ na kon la seytaane takk ci sa jëmm ji la seytaane yeewu ci sa yaram yu yépp dañ nañu amul dara la fa des sang bi nee na sallallahu alayhi wa kooku mooy jëmm joo xamante ni fa asbaha na shiitan kooku mooy yeewu ci suba si mu doon ku fiix mu doon ku mise à jour jëmmam tayyiba nafs kooku mooy borom bakken bu teey bi kooku mooy am bakken bu teey kooku mooy ànd ak bakken bu laab nee bu fekkente ne lim la joxoñal nii nekkoo ci lii defoo yii haa li ngay dese mooy la la seytaane bàyyee te su booba yonentu bi ne asbaha kabi xabiisa nafs kasalaan kooku mooy kuy xëy mu ànd ak bakken bu taq ak càggante bi nga xamante ne du nangoo remplir lenn la ko yàlla santaane bu dee ci jamonoy weeru koor la kooku mooy woor malgré woolu wooru margere lay woor waaw kooku mooy nekk di woor muy tànqal nit ñi di sabote di wax la koor gi méttee bu dee du jamonoy koor kooku mooy koo xamante ne du musa remplir tisbaar ndax julli fajar romb na ko ci anam bi nga xamante ne daa bàyyeek boppam seytaane rempilul condition bañ ko na asalaatu xayru minan nawm kooku moo jëmm ju bàyye boppam seytaane yenentu bi nee kooku muy kuy xëy bés boobu mu doon boroom bakken bu soof boroom bakken bu salte boroom bakken bu taq mu doon kuy tayal kuy sàggane lépp lu baax du julli tisbaar du ku doon kuy julli takkusaan timis waxu noppi kooku mooy ki bàyyee boppam seytaane ci guddi ba mu doon nelaw waaye ba mu xëyee tamit la ko seytaane yeew loolu lay dese ba mu doon ku bakkenam taq ku bakkenam salte mu doon ku jëmmam doon jëmm ju tayal ci xeetu jaamu yàlla yi mbokk yi ñoo andi si commentaire bu ndaw ci maana hadis bi bokk na ci lala yonent bi di joxoñal yow jullit bi moo ne lu jiitu ngay tëdd na nga jàpp nga julli ca safa ak sa witër buñ ne safa ak witër mooy ñaari rakka ya ngay julli gannaaw gee ak benn rakka bi ngay julli ginnaaw gee muy safi dañ ne njëlbeenu ràkk gannaaw bi nga jàngee faatixatul kitaab be saar boo ci teg moy sabbih isma rabbika al aala be keroog ngay àgg inna haada la fi soxofi al ula soxofi wa muusa ñu ne ñaareelu bi loo ci war a teg mooy qul yaa ayyuhal kaafiruun ba keroog saar bi di jeex boo ci noppee nga silmal nga jóg andi benn ràkk bi nga xamante ne boo ci jàngee qul huwallahu ahad ak qul audu bi rabbil falaq ak qul audu bi rabbin naas baax boo ci jàngee qul huwallahu ahad kese rekk nga bañ a indi falaqi ak naasi baax na su ko defee nga daldi waajalal sa bopp ne dangay waaja suubu ci xéewal bala yàlla xéewalal ci guddi bi te mooy xéewalu nelaw yonent bi jàngale na fa njàngale yu bari ne yow jullit bi ni nga war a tëddee nii nga war a dugge ci xéewalu nelaw bala yàlla yenkeewal nga di ko def ci guddi bokk na ci tegtal yafa yonent bi joxoñ bari nañu lool waaye ñu jël benn bu yomb te neex a jëfe moo ne gannaaw bi nga jullee sa safak sa witër nga waaja sóobu ci xéwal bala yàlla jox te muy xéwalu nelaw yonent bi ne na làqu ci ginnaaw tuuru yàlla yu matale yi na làqu ci ginnaaw tuuri yàlla yu sell nanga nga fa yàlla mi nga xamante ne mooy boroom kaaraange bu mattale bi ba tax na nga ne ko bismika allahumma muutu wa ahya bismika ci sa tur sama boroom bismika ci sa tur buru yàlla ca lay làqatoo ca lay sama jëmm ji ak sama bakken bu ma faatoo wa axya ak bu ma dundee dénk naa la sama ruux yow yàlla yow mi ko moom dénk naa la sama jëmm yow yàlla yow mi ma moom amuutu bu ma dee wa axya ak bu ma dundee kon bépp jullit ba ñaan yàlla ñaan bi bépp jullit ba làqu fa yàlla ci anam bi yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa seytaane du la jege yow ci guddi woowu ba muy takk bagaasam ci sa jëmm ji ba muy am ñetti takk-takk waaye képp ku yàlla dogal nga sàggane la yonentu bi joxoñ ne jullit bi niir a war a tëddee ba yàlla dogal seytaane mëne la seytaane occupé la ba nga sóobu ci nelaw la wuuteg la yonentu bi jàngale yonentu bi nee na seytaane day andi bagaasam yi takk ko ci sa bopp bi takk ko ci sa loxo yi takk ko ci sa ñaari tànk yi mu doon ñetti takk ya mu takk ci sa jëmm ji sallallahu alayhi wa nee na waay bu yàlla dogalee bi nga ximmiliku nga daldi yeew daal retrouvé wu ne man de dama doon nelaw waaye xëmmiliku naa nga daldi di ne danga doon nelaw mais léegi nelawatoo yonent bi ne ci saasi na nga tudd yàlla tudd yàlla bu jàppandi ci sa jëmm ji ci moment boobu na nga tudd yàlla ci saasi na nga tudd subhaanallah na nga tudd allahu akbar na nga wax laa ilaha illa na nga wax alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur tudd yàlla bu jàppandi ci moment boobu yonent bi nee na boo ko tuddee njëlbeenu takk ba seytaane takk ci sa yaram deñ na nee na boo jógee dem ci wanag bi laaplo moo xam dangaa sangu moo xam dangaa jàpp nee na ñaareelu takk ba seytaane takk bagaasaami ci sa jëmm ji takk boobu deñ na neena mu des benn takk bu mu takk sa tànk neena na boo jullee ñaari rakka ci guddi boobu takk bu seytaane takk sa tànk bi boobu tamit deñ na ba tax na mu ne la fa asbaha nashitan tayyiban nafs nee na bakken jooju mooy yeewu bés boobu mu nekk bakken ju teete dagan bakken ju neex bëgg bakken ju neex dund ci jëmm jooju waaye nag mu ne bu fekkente ne lii mu nii defoo ko nii melewoo melokaan wii wa illaa bu dee defoo nii asbaha xabiisa nafsil kaslaan bakken jooju muy xëy doon bakken ju taq bakken ju salte bakken bu tilim waaye jëmm ju bakken jooju di dund mooy doon jëmm bu mooy doon jëmm joo xamante ne day doon jëmm ju sàggane boppam mooy doon jëmma joo xamante ne waxut la yàlla digle soobuwu ci du ci dugg du ci nekk kon bakken jooju day doon bakken ju ñaaw waaye jëmm bu mu nekk tamit day doon jëmm ju tayal mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna qawla fa yattabiuna ahsana ñay joxe xibaar ñu ngi ni taxaw fas yéene leen jébbal béréb bi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 ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu